ausbillahi mina seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasid baraay rabbi israh sadri wa yassir amri wa ahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam di sant sëriñ Tuubaa xaadima rasul yaakaari jàmm ñi tey ak di ñaanal sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo toogee ab jataayam na ak mi ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey Serigne Touba bi yëpp xam ngeen ne mbokk yi ni ko baaxoo woon Touba Vision dellusiwaat nañ fii tey ci waajtaayu bis bu tedd di bis boo xam ne kilifa gu tedd di sëriñ Abdoul Ahad Mbacké mu Cheikh Mouhamadou Mourtada mu Cheikh Abdoul Ahad mu Serigne Touba moo koy taxawal fii di ko defal maamam ju baax ja waaye jëlee ko ci ndigalul Serigne ba Bachir mi nga xam ne moo fi nekk xalifa général yàlla na fi yàgg loolu te naa bala dañuy ziar suñu kilifa yu tedd yi ñu toogal bokk na ci Serigne Ibrahima Diom ak Serigne Abdoulahat Fall ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax xam naa di jox kàddu gi Serigne Ibrahima joom mu leeral lenn ci li nga xam ne moo waral teewaay bi ndax bu ma juumul ñu ngi ci juróomi édition ci ren ji kon Serigne Ibrahima asalaamaaleykum. bismillahi rahmaani rahim. allahumma inni u'iizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytaani rajim. rabbi a'uuzu bika min hamazaati ash-shayaatiin a'uuzu bika mbokk mi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di wax ne comme ni nga ko waxee euh, mu nekk bis boo xamante ne journée culturel la ki ko taxawal mooy euh, sëñ Abdou Lahad moom sëñ Mourtala moom sëñ Abdou Lahad Mbacké moom Xaadimu Rasuul bis bi nag taarix bi mi ngi jóge ci ndigal nga xam ne sëñ Muntaxa laata muy nekk xalifa jamono yooyu euh, Cheikh Sidi Muxtaar moo fi nekk sëñ Abdou Lahad Euh, yàgg am mbébét ci maamam soxna jaara Buso nga xam ne daan na fi jógee dem fii ba poroxaan daan ko nemmeeku yàgg tamit am yéene liggéey ci lool ci liggéeyal barab boobu nga xam ne sañ Basiiru da koo def defal ko moom it maamam taxaw fa ñu am fa taxawaay taxawaay bu rafet waa kër sëñ Basiiru mu gis ne ba mu fa demee bëgg jàpp ci liggéey bi te xam ne ku ne xam na ne sëñ Muntaxa moom laajul kenn dara lépp dafa liggéey bi dafa tegu ci kawam biñ fa demee dañoo gis lu kawe suñ jort lu ñu yéem lool ndax ba ñu laajee ne ah ñun dañoo bëgg a jàpp ci liggéey bi bañ ñu waxee lam fay dépense yi nga xam ne moom la fay def par weer rek daf ñoo yéem par rapport ak ñun nga xam ne li ñu xalaatoon biñ ñëwee nag biñ mu boole ñoo ka nga xam ne moo nekk ci daara ji muy aboo jaxate ñu dem fa mu wan ñu loo xam ne rek daara ji da ko itteewu première édition bi nag ñu ne woon koddaay waaw kon euh, yàgg na boo xoolee poroxaan bu njëkk ba nit ñi ba ñuy dem da ngaa gis sax ku jël sa yére yóbbu ñu nekkoon kon nag euh, nañ ko def ay tissus maanaam koddaay daal bi ñu ko wootee fii si ses bi ñuy ñëwee ñu am koddaay yu bëri yóbbu ko mu nekk loo xam ne sëñ bi rafetlu ko lool jamono yi nekkagul xalif édition bi ci topp ñu laaj ay matelas matelas yi aussi ñu am ci lu kawe suñ jot lu kawe suñ jot am sax koo xam ne dafa. dafa dafa dégg annonce bi rek dem ba Poroxaan yóbbu fa 450 matelas fii ci liggéey bi tamit li fi amoon ci ay matelas bari woon na lool lool lool waaw macha allah yooyu yëpp ñu dajale ko yóbbu ko troisième édition bi tamit ba ñu fa demee sëñ bi daf ñu wax rek ne sëñ aboo daf ñu ne lépp loo xamante ne rek jigéen na ko itteewu biñ ñëwee même ay serviettes hygiéniques am na ñoo xam ne indi nañ ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñii indi ay diw ñi indi. lépp loo xam ne rek jigéen da ko itteewu ñu dajale ko def ko ci camion yóbbul ko sëñ Muntaxa waaw boobu moo nekkoon euh, quatrième édition bi ren nag mooy cinquième édition bi ñu delluwaat bi ñu delluwaatee sëñ Abo ba ñu fa demee matelas la lañu waxaat kon mbir mi dafa tegu ci ndigal léegi nag euh, ci lañ nekk ba ñu ngi nii nga xam ne suba incha allahu la ñuy daje fii nga xam ne lépp lu ñu war a def rek def nañ ko euh, bépp depanse boo xam ne war nañ ko def rek te journée bi lépp luñ ciy jëlee rek dañ koy yóbbuwaat Poroxaan dañuy fekk Sëñ Muntaxa fa mu nekk yóbbu ko jox ko ko lépp loo xam ne nag def nañ ko rek war nañ ko def ci préparage préparatif yi rek wax dëgg yàlla pare nañ. jërëjëf euh, sëriñ Ibrahima dafa mel ne kàddu kooku nga xam ne wax na ko tënk na lépp ci lu jëm ci wàllu euh, ndaje mi nga xam ne moom lañu amal fii suba ci teewaayu ay kilifa yu bare bari yoo xam ne daan ko teewee incha allah nu mu ko waxee léegi. Euh, ci liggéeyal soxna jaara loo am am solo la ndax euh, soxna jaara moo waral lépp kon fu ab jullit nekk rek sa addiya war nga koo joyal ci bërëb bi nga xam ne fa la ñuy jànge alxuraan di fa defar jikko muy bërëb boo xam ne bokk na ci bërëb yi lislaam gën a fonk ndax jikko jullit dëgg-dëgg faaw jikkoom rafet kon xam naa ne bala ñoo jàll ci waxtaan wi dañuy jox sëñ Abdou Lahad Fall moom mi nga xam ne ci ñor wàllu organisation bi ci la bokk mu xamal ñu suba programme bi naka lay demee fii ak yéen kilifa lan fii séentu ak kañ la ñuy tàmbali liggéey bi ak yu demee noonu ak don yi ni indi yëpp ku ko bëgg indi foo koy jaarale kon si Abdou Lahat asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Alaaji Cheikh Dieng ñu ngi lay wax ne waaleykum salaam ak sëñ Ibrahima Diom mi ñu toogal ñu ngi leen di siyaar bu baax ak ak ci turu kuréel ànd liggéeyal soxna jaar bi yëpp. nga xam ne ne eh, ñenn ci mbooloo mi rek ñoo toog fii waaye kuréel bu yaatu la gannaaw ba ziare Cheikh Abdou Lahad Mbacké mu Serigne Mourtada moom Serigne Abdou waaw ñu wax ne bis bi bii mooy cinquième édition nu si Ibrahima Diom waxee jaar na si jaw ñu si jaaraat waaye bis bi bis boo xam ne ni Serigne Mountakha al Bassirou moo si jox ndigal Serigne Abdou Lahad Mbacké Serigne Abdou Lahad tamit mu jëlaat si ndigal si Sidi mu Serigne Abdou Lahad jëlaat si ndigal tamit sëñ Murtada Mbàkke moom si ñëpp laxat nga xam ne moo ko moo naa la bis bi nag nu ko waxee nu ko si Ibrahima waxee rek ay matelas moom lañ si laaj euh, matelas yi nag yaakaar naa man yaatu na ndax kenn ku ne ñu ko dégg di si def seen wërsëg kenn xamu nu mu toll. waaw bis bi nag ñu koy teewe yan kilifa ñoo siy teew ak bis na nan lay euh, doxee ki nga xam ne moo si jiitu mooy sëñ Bassirou Abdou Khadar moom ci boppam moom ñi xam mooy porte-parole yoonu ndax boo xoolee avant prière bi moom moo ko def moom la Sëriñ Muntaxa yabalaat teewul tamit maam na Koso di doomu Sëriñ Muntaxa Basiru chaque at moom ma fii boo koy moom teewee njaboot Sëriñ Tuubaa yëpp fii teew ndax Sëriñ Murtadaa mu Sëriñ di waajuram dana fi teew Sëriñ Siidi mu Sëriñ Abdulaat dana fi yabal at mu nekk Sëriñ Abdulaat ka at mboolem kilifa yu bari te ren nag bis bi na maam Seynabou Ndiaye moom lañ ko tuddee daan ñu wax ni bis bi sëñ bi dem na ba Seex Jëmm Faal sëñ Muntaxa ba mu ba mu jotee digal sëñ taxaa da ko yebal ci sëñ Seex Jëmm Faal boo dem ci Seex Jëmm Faal waxtaan ak moom ñëwaat ci sëñ bi ba nga xam ne siñ Seex Jëmm Faal dana yebal sëñ Fàllu Faal mu sëñ Moodu Aminta Faal naka noonu sëñ Seex Déggal Faal dana fi teew ak mboolem waa Seex Ibrahima Faal yëpp dana ci teew ak mbokki boppam yi maanaam kenn du des ak bépp kilifa yëpp danañ ci teew bis bi nag ni muy ni muy doxee bu ñu xëyee danañ jàng alxuraanu karim te yaakaar naa alxuraan ji bañ ko tàmbalee yàgg na mën naa ne belal rek dañ fa jàng ci kaamil ëpp na juróom-ñaar fukk waa Touba waa Njaareem ñi ñu nekk Poroxaan ak ñeneen ñoo xam ne dañoo dégg liggéey bi di jàng ay li ay limu kaamin kaamin ak limu xasaayit kon bu suwaata mi dañ koy continuer bu ñu xëyee balaa midi dañ fi yëkkati al ay kaamil alxuraan yëkkati fi ay xasaayit bu ko defee mbool mboolem këlkatu xasaayit yëpp danañ fi teew ak jànkatu xasaayit ak waxtaankat yi bu ñu añee ba noppi nag cérémonie bi soog a tàmbali. nga xam ne cérémonie bi nag buy tàmbali daanaka sëñ Bass Abdou Khadre mun naa ne mooy man kilifa gi ak mbokki taalibe bi yëpp ñoo xam ne ñëpp fii teew. ànd ak moom liggéey bi daal yaakaar naa noonu lay doxee nga xam ne bu ñu demee ba timis rek ñu ñu mën a ñaan euh, bis bi yaakaar naa ci loolu lay dox xaw ma bu dee am na loo may bu dee am na laajaat daal. waaw jërëjëf euh, Serigne Abdou ngeen jëf mbokk yi kon ni ko waxee léegi am na solo lool ndax bis la boo xam ne bisub liggéey la waaye ñu tuddee ko maam bu njaay te maam bu Ndiaye ku ko wax xam ne ku am cër bu mag la ci yoonu murit ndax doomam jëm mooy babul muridina mooy Cheikh Ibrahima Fall te yaakaar naa lépp lu waay dugut ci yoonu murid bunt ba mooy Cheikh Ibrahima Fall kon dafa mel ne bunt bi ubbeeku na ci képp koo xam ne yaa ngi yëkkati saw ñaq jëmale ko ci liggéeyal yàlla yaakaar naa lii moom boo ko ci defee suñu borom dana ko nangu ndax euh, mbooleem doomu aadama yi nga xam ne jaar nañ ci àdduna bokk na ci li tax ñu xam seen tur mooy jëf ju rëy kon yaakaar naa képp ku jël saw ñaq tabbal ko ci lu jëm ci alxuraan tabbal ko ci luy defar jikko te yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom ci jikko la ko tàgg rawatina ku mel ne suñu maam ju baax ja di soxna Jaara Buso mi nga xam ne moo waral lépp nga xam ne na ko waykat waxee woon rek ama abuha aquha qaaluha fahumoo xayrul masiyaati axlaaqan wa adyaana min al amaaraati kawnal ummi habidatan mutiatan rabbuha fawqal mutiaati mutiatan li kawniha fawqa jaarin wa jaaraati kon dafa mel ne loolu dafa doon tàgg jikkoy soxna jaara ci njàngum alxuraan nga xam ne daara la yoroon di jàngale di defar jikkoy doomu adama léegi nag bu ñu demee ba ab sëtam ñëw ngir jàpp ci liggéey boobu dafay mel ne li wolof di wax na la ca maam sëtu koy dondu dafa mel ne feeñ na ci sëriñ Abdou Lahad nii ñu koy ñaanal bu baax baax ak mbokk yi nga xam ne yëpp ñi ngi participer ci bis bi kenn ku ci tabal saw ñàq daal ñi ngi lay ñaanal nga daje ak ngërëmul sëriñ bi yaakaar naa sëñ bi moom ku jëf rek dana la fay ndax yoonu murid yoonu jëf la mboolem ñi seen tur ko ñëpp jëf moo leen ko may. kon ñu ngi ñaan sëñ Abdou bu baax a baax xam naa kon dañuy jox euh, mbokk yi ñu tàggatoo rek ñu teg jotaay bi di leen xamal ne suba incha allah programme bi lépp dana nekk direct ba keroog muy jeex ci Touba Vision fépp foo xam ne taalibe bi nekk na fa rek mën na koo seetaan direct dana daw direct incha allah li ko dale ci journée yëpp incha allah. kon xam naa dañuy jox sëñ Ibrahima mu tàggatoo ñu jox sëñ Abdou Lahad mu tàggatoo ñu jox leen dig daje ba suba incha allah jërë ngeen jëf. comme ni nga ko waxee rek bis moom comme noppi nañ suba rek incha allah ñu ngi xaar képp koo xam ne rek jullit nga te alxuraan ñor la ndax alxuraan la ñuy liggéeyal ndax euh, poroxaan boo gisee sëñ Basiru taxawal ko fa. mooy tey soxna jaara bépp turandoom bu fi nekk moom bu fi nekkoon lépp lu war ci ñoom moo koy def te li gën a war ci ñoom mooy alxuraan ndax moom ku ko ku nekk xam na ne alxuraan moo nekkoon toolam Serigne Touba tam foo koy liggéeyal ci euh, tàmbalee ci alxuraan rek xamal ne yaa ngi ci yoon wi kon sosoo ci lenn bis bi nag nañ xam ne dañ koy ànd ak euh, groupe ànd liggéeyal soxna Diarra Bousso ñoom ñoo ci accompagner sëñ Abdou Lahad Mbacké groupe bi nag am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci réew mi waaye am na ñoo xam ne ñu ngi bitim réew waa Gabon ñu mel ni kii ñoom soxna Awa sàll ñoom da euh, ak waa Cap-Vert ñoom soxna Yacine ñoom waa Côte d'Ivoire ñoom soxna Amina ture ñooñu ñëpp ñu ngi ci groupe bi am ba ci boo demee waa Finlande am na sax ñu nekk Amérique am na ñu nekk Italie ñooñu ñëpp ñu ngi ci groupe bi waaw ñooñu nag ñooy ay jàmbaar yoo xamante ne ñoo ànd ak euh, sëñ bi ci liggéey bi ak waa Touba Ngor mu nekk ay jàmbaar ak waa Matlabu Chifa yi ñi nga xam ne ñu ngi nekk Parcelles Assainies ñooñu ñëpp nekk nañ ak individualité yoo xamante ne ñu ngi ci groupe bi tamit nga xam ne. ay bon volonté lañu nekk ci groupe bi vraiment lépp loo xam ne woote nañ ñu ciy jàpp ndax am nañu groupe whatsapp yooyu yëpp mu ngi dox macha allah euh, bis ba nag kilif comme ni ko sëñ Abdou Lahad Fall waxee kilifa yi bët nañ fi teew sëñ Mountakha bañ na ko ba taawam la fi yebal sëñ maam Thierno saa su ne première édition ba quatrième édition moom mooy même julli yi ñu fiy def yëpp moo koy jiite macha allah euh, sëñ Abdou Lahad même way juróom daaw dafa ñëw sëñ Mourtala te ren aussi ñu ngi ko annoncé sëñ Bass Abdou Khadri noonu. bis bi nag bis bu sell la ute naag bis yu bëree bari ndax bis bi dafa tegu ci ndigal ndax bis yomb na waaye bis bu ànd ak ndigal moom daf cafe na euh, ba ci Cheikh Sidiyal Muxtaar bi sëñ Abdou laxat amee ndigal sëñ Muntaxa dem ci moom daf ko ne xanaa magal a déy waaw ndax euh, soxna jaara moom ku koy liggéey tàmbali ci moom rek mooy sa liggéey egg na bu ko defee nag di ziar waa kër sañ Basiiru yëpp rawatina sëñ Isaaxa ñu ngi koy ziar bu baax a baax jàmbaar yooyu nga xam ne ci wàllu parrainage beeg yooyu yëpp macha allah ñu ngi ci liggéey liggéey bu am solo ak yéene yi nga xam ne am na ko ci poroxaan ndax ñoom dañu am yéene sax mu dem ba nekk université ñun nag dañ ciy jàpp rek li ñuy def sax annuellement la rek kon ñoom defe naa ne ñoom lépp ñooma waaw ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax sëñ laat daal mi ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi woo daal képp koo xam ne rek jullit nga am nga lépp loo yéene boo xam ne rek am nga ko yóbbu euh, bagage boo xam ne ba nga ko yóbbu mu dem poroxaan Euh, xale yi mën koo jëfandikoo rek boo ko indee fii incha allah dinañ ko yóbbu kon daal foofu la ñuy wàccee suñuy kàddu di nuyu ñëpp rek di sant ñëpp jërëjëf. waa kay sëñ Ibrahima Diom jërëjëf sëñ Cheikh waaw nu mu ko waxee rek dañuy tàggatoo waa kuréel ànd liggéeyal soxna Jaara bi yëpp ñu xam ni liggéey la boo xam ne liggéey bu yaatu la ñu xam ne liggéey la boo xam ne ñu ànd ak sëñ Abdou Lahat Mbacké ko si Ibrahima Diom waxee yaatu na waa Italie waa Espagne. waa États-Unis waa Abidjan waa Gabon waa Mali waa Cap-Vert Finlande réew yëpp Maroc Algérie ba Sénégal Touba Dakar ña xam ni ñoom ñëpp dañoo ànd ak Sëñ Abdou Lahad Mbacké nga xam Sëñ moo ko jox turu maslakul muharifin ak taalibina mardiyin noonu la ko tuddee tax maslakul muharifin ak taalibina mardiyin ña xam ni noonu la liggéey bi noon lañ ko noonu lañ ko tuddee ren nag ñu ñoo ngi soññ ñëpp xam naa ne waxtu wi may ñu tax ñuy leer la bari waaye ñoo ngi soññ mbokki taalib yëpp ci matelas laay ren bañ na ko sëñ bi lu ko waay jox mënoon mënoon nañ ko def ay matt laa kon ñoo ngi koy ñoo ngi koy wax mbokki taalib yëpp eh, ndax matelas yi jëmul fenn lu ñu gën a soxla tax 500 matelas moom lañ soxla ndax 500 maam jaar moo ne ci Porokhane bu ñu soñoon jàmm dañu am 500 matelas kon matelas yi ñu ngi ciy soññ mbokki taalib yëpp képp koo xam ne dégg nga suñu kaddu ñu ngi la si woo matelas yi ku si mën a jàpp na si jàpp ngi jimmi soxna jaar bu so ndax demul fenn ca maam jaara yi nga xam ne ni alxuraanu karim moom la ñuy jàng ak xam-xam ci dañuy tëdd kon nag loolu képp ku si def sab ñàkk yaakaar naa doo ko rëcc euh, ndax ci dara darajee rek si Muntaxa Basiru loolu mu ne woon euh, ba itam boobu rek ndeysaan mun na alaya bil xilmi wa amal bil muntaxaa waliya yukkamil amal kon ñu ngi koy ñaanal baax seex moom muntaxaal Basiru yàlla na fi yàgg loolu te wér di siyaar baax suñ siidi mu suñu ab laat di siyaar suñ Murtada di siyaar suñu ab laxat Mbàkke ak mbooleem waa kuréel ànd liggéeyal soxna jaar yëpp baw ñu kenn suñ seex yoo tamit ñu ngi lay siyaaraat bu baax leen rek mooy yàq sant bi moo nekk jàng boo seen doon fàll mu neex lool jërë ñeen jëf